asalaamaaleykum mbokki internet wu Dakar People ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal di am contentement ak mbégte comme ni ngeen koy defee nuñ koy defee saa su ne waxtu bu ne ngeen choisir la chaîne leader chaîne askan wi Dakar People seen dundin ak seen nekkin ñuy ànd ak yéen di siiwal di feeñal. ak a woyalee borom xam-xam fépp fu mun a nekk ci biir réew mi te nag ñu dalal kàngam kilifa boroom xam-xam bu kenn dul naatable ñaankatu yàlla bu ñu ràññee ci biir ak ci biti réew mi bindkat jàngalekat macha allah mu taalif ay téere xam-xam yu bëree bari ñu gën ko xam si sëriñ Abdou Khader Ba sëriñ Abdou Khader Ba nuyu nañ la.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 di ñaan suñ borom nag saa yuñ koy émission bu nekk ñuy bëgg di waxe xam-xam nga xam ne ñi ñuy topp au moins dañ am luñ jàng ci li ñuy wax ba ci sax ñi nga xam ne dañuy gëstu ci wàll wi mhm. kon nag ñu ngi leen di nuyu yaa ak sa caméraman bi di leen dalal di leen wax ahlan wa sahlan macha allah Serigne Abdou Khadre Ba ñu ngi lay fay daanaka yow kenn dootu la présenté sax ndaxte képp ku la xam xam ne ci xam-xam la la xamee ci jàng ak jàngale comme ni ma ko waxee sa présentation ba bëri na ci ay téléf yoo xam ne téere yoo xam ne danga ko taalif wax ci xam-xam jàngale ci lu bare bari kon tey yaakaar naa ni contentement privilège bu mag lañu am pour sekk ak waxtaan <coughs> laaj ak tontu waxtaanee xam-xam waxtaanee pàcc yu bëri ci mbiru xam-xam tey sëriñ Abdou Khader suñu question bu njëkk bëggoon naa ñu waxtaanee ko ci mbirum seet ndaxte yaakaar naa boo nee asraar boo nee sëriñ bunt bu ñu naan buntu seet dafa nekk li nga xam ne dafa am am solo te ko wax seet seet bëri na ay buntu lool bëri na ay maanaa tey sëriñ Abdou Khadre boo ñu doon wax ci tënk ak a leeral lan mooy dégg-dégg seet ana lan mooy njëriñal seet ci doomu aadama. waaw question bi nga laaj question bu am solo la te xam naa ne yàgg nga ko laaj waaye dañ la koy tënkal rek. xam nga wolof ci boppam mooy wax seet waaye baatub seet boo ko doon traduire en français mooy tudd consulter mooy consultation mhm. euh, bu dee ci arab tamit loolu lay tekki mhm. léegi li nga xam nag moo ci am solo yi nga xam ne moom lañ la ko mën a tënkale mu gàtt mhm. benn nit ki day am feebar ñëw ci yow jumtukaay yi ngay jëfandikoo pour nga xam feebar ba ko dal. Mhm. loolu seet la. Mhm. moo xam docteur bee koy def moo xam ci sëriñ bi ngay dem. Mhm. ci sëriñ bi ngay dem loolu mooy seet. am na ñoo xam ne buñ la xoolee rek dañuy xam li nga li dal. am na ci ñoo xam ne dañuy seet seetu adat. am na ci ñoo xam ne dañuy seet seetu ndox. am na ci ñoo xam ne xaar la boo xam ne dañ koy def di ko fanaanu ngir xam sa mbir wala ngir xam sa tawat. kon mboolem loo xam ne nit ki da koy jëfandikoo pour kii ñëw ci moom moo xam feebar la indaale moo xam gàllankoor bu ne ci moom mm-hmm. la muy jëfandikoo ngir xam loola mm-hmm. loolu mooy ëmb seet mm-hmm. léegi nag bu fekkee ci diina la nag lislaam day bëgg lépp loo xam ne boo koy def bokkaale du ci du ci nekk <laughs> moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam miñ ko gaaralee ay jat ay ñaan daf leneen la ba'sa bihi ma lam yakun fihi maanaam li feeg bokkaale néew ci rek loolu dagal na mhm. moo tax tey jii nag ñu indil leen benn pàcc boo xam ne bari na nag ñu ciy wax bari na ñu ciy dugal yoo xam ne cosaanam loolu taxu ko woon a jóg ñu indil leen ko muy ilmu ramli wolof nag di ko wax gisaane wolof mooy wax gisaane gisaane mhm. gisaane buñ ko waxee ci wolof mooy lépp looy jëfandikoo di ko gis di ko xam mhm. moom la wolof tudd gisaane mhm. waaye xam-xam bii ñu leen indil tey ngir am luñ leen ci leeralal tuuti rek mhm. ndax moom xajut fii mhm. xam-xamu tomb suuf lañ koy wax mooy almu ramli <laughs> macha allah ah? loolu lañ leen indil tey ngir ah, am luñ leen ci baaxale incha allah ah, xam-xam bii nag yàlla def na am na lu ñu ci dénk ba comme ni nga ko waxee ci présentation bi ñun suñ liggéey li ci ëpp mooy bind téere mooy bind xam-xam ngir nit ñi jaruñu ndax nit ñi dañoo bëgg xam-xam moo tax fu ñuy wax rek dañuy bëgg di génn xam-xam au moins nit ñi am nuñ ci jëlee almu ramli nag wolof di ko tudd gisaane wala di ko tudde tomb suuf cosaan li ci boppam euh, bu dee français da ko tudde géomagie mhm. géo magie la ko tubaab di tudde mhm. xam-xam bu yàgg la nag boo xam ne mhm. ñi nga xam ne ñi ngi koy gëstu gis nañ ko ci ay gorot comme niñ ko yaa xamee ay maanaam doom ñi gis nañ ko ci ay gorot lu ëpp ay junni at. maanaam mm-hmm. am na borom xam yu wax ne ci nuux la wàcc. am na ñun ci Idris la wàcc. Mm-hmm. waaye yonent bi bi muy ja bi muy wax xadis boobu bari nañu ko daayifal mm-hmm. ci muy wax ne amoon na yonent bu daan bind ci suuf. muy yonent yàlla Idris. képp koo xam ne xam nga mbindam moomu wala nam ko naan defee xam nga ko faxat asaaba mhm. maanaam danga nga da nga li ngay li ngay wax dana jub mhm. dont te xadis boobu am nañu ko tadifan mhm. waaye waxul ne yonent bi ci ci yonent yàlla bi Idris la dana xamoon na ko léegi nag xam-xam boobu dafa nekk xam-xam bu yàgg boo xam ne maanaam ñi koy daan gëstu di ko jàng bokk na ci ancien Égypte nga xam ne ci jamono yonent yàlla Moussa daan nañ koy jëfandikoo ay ashkaal bu ñuy tuddee ay ashkaal nag mooy lu mel ni genre dessin lay doon yoo xam ne li ngay wax day mel ni da ngay jàkkaarloo moom lu ñuy tuddee al ay ashkaal ay ashkaal mooy doomam yi day mel ni li ngay wax dangay ngay jàkkaarloo moom léegi xam-xam boobu nag dem nañ ci ba ñi nga xam ne ñooy jàngale ilmul falak am na lañ ci dolli ñi nga xam ne dañuy jàngale ilmul xisaab. am na luñ ci dolli. luy ilmul falak luy ilmul. waa ilmul falak mooy. ñi nga xam ne xam-xam ñuy topp affaire biddiw. <laughs> xam-xamu biddiw. xam-xamu biddiw. <laughs> am na ci dolli di ko <laughs> méngaleeg seen xam-xam boobu. ñi nga xam ne dañuy def xisaab tamit. am na luñ ci dolli pour méngale ko boobu. nga xam ne dafa dem a dem ba dañ koo jafeel jafeel boo xam ne ngir nga jàng ko. jàng mu gàtt xam ko day jafe. day waaye nag cosaani rek. ay ashkaal la mhm. nekkutoon la compliqué mhm. comme ni ma la koy misaale dafa am fukki doom ak juróom benn yoo xam ne mooy doomi gisaane mhm. am doom bu nekk dafa am kër gu muy taxaw muy fukki kër ak juróom benn masalan buñ ne sëgal sëgal arab am na nu mu koy waxee mais wolof ci boppam mooy tudde sëgal wolof pël pulaar ñu ñëpp sëgal la ñuy wax ci suura suura sëgal boo koy tekki mooy loo xam ne lu diis la. Mhm. segal segal bii nag cosaanam mi nga jóge ci noqta tomb. noqta soo ko tasee segal bii moo jur fukki doom yi ak juróom-benn yëpp. Mhm. fukki doomi gisaan ak juróom-benn yëpp moom moo leen jur. Mhm. ndax man ni ma koy jàngalee ak téere yi nga xam ne moom laa ci bind damay def bopp baat ndigg tàng. mooy benn ci kaw ñaar ñett ñeent. <laughs> li tax ñu ne sëgal moo jur fukki doom yi ak juróom-benn yëpp maanaam boo jëlee nii boo ko xaajee nii lii ñeent la. <laughs> lii ñeent la muy juróom-ñett. <laughs> juróom-ñett boo ko multiplier par deux da jox saise nga ñëwaat ci kër yi gisaane yi. te doom bu nekk dafa génn fii masalan boo jëloon lii dalay jox tariit tariit mooy yoon. ci arab kii da lay jox siifar. siifar. siifar mooy yàq mooy jàpp tubaab mooy jàpp nasaraan. Mm-hmm. moom nasara moom day jàpp nasaraan day jàpp lu weex. Mm-hmm. góotal. ah mm-hmm. pël da koy tuddee butéel moom day jàpp jigéen. joo xam ne jànq la. sambra day jàpp jigéen ju ñuul wala jigéen joo xam ne maanaam jeeg la. gëbar waaqaf mooy góor gu taxaw. gëbar waaqaf mooy góor gu taxaw ak ñaari tànk. mooy gëbar waaqaf gëbar kiis. mooy góor gu taxaw ak benn tànk. Mm-hmm. bëdd na bëdd na mi ngi firi ëmb. Mm-hmm. ëmb daamar boo xam nga mooy wala bu nee daamar rek mooy ñeent tànk mm-hmm. lépp loo xam ne. ñeent tànk la rek wala da koy tuddee daamar. mën naa jàpp juru kër. mën naa jàpp oto. mën naa jàpp sax salon. mën naa jàpp kër. wala wala lu tuddee wala fu tuddee daamar mën naa jàpp oto mën naa jàpp avion ñeent tànk. laxyaani waaxaf. laxyaani mooy sikkim maanaam góor gu mag goo xam ne dafa yore sikkim taxaw ak ñaari tànk laxyaani kiis ba tey mooy góor gu mag gu yore sikkim taxaw taxawaay benn tànk mm-hmm. amar mooy lu xonq mooy ahmar ci arab mm-hmm. mooy loo xam ne dafa xonq su dee pël nag dana ko tudde màggat mu jigéen mm-hmm. dinañ ko ko tekkee kii mooy abyad abyad mooy loo xam ne lu weex la kii mooy rekk sa kiis mooy boroom béjjën bu taxawee benn tànk kii mooy sa waaqaf mhm. léegi yii mooy fukki doomi gisaane yi ak juróom benn yoo xam ne mooy cosaan gisaane ci askaal yi moom lañuy xool loo ci bëgg a génn nag ci nit wala loo bëgg xam ci nit mën nga koo xam ci fukki doomi gisaan yi ak juróom-benn yoo xam ne doo ci génn. Mhm. fukki doomi gisaan yi nag mooy ñëw taxaw ci fukki kër. yi ak juróom-benn ci gàttal li ma wax mënoon naa yaa mën naa mën naa gën a yaatu loolu waaye nag du fi xaj dañuy tënk rek dañuy tënk kër yi mooy fukki kër gisaane ak juróom-benn man su may firi gisaane du ma ci boole fukk ak juróom ba fukkeel bi ak juróom-benn waaw dama nekkoon di leeral sëgal bu nekkoon ci taaw bi taaw bi mooy kër gu njëkk ci waxinu waxinu euh, tomb xam-xamu tomb da wax xol bu lëndam te mujj guy sedd masalan su bari woon ci gisaane gi ségal su fakkoon na dafa bari ci gisaane da lay wax boroom gisaane gi lëndëm lëndëm yu xol yu nekk ci moom mën naa firi tamit taw bu baree bari boo xam ne dafay wàcc yii boo ko jëloon par benn benn la léegi bu fekkoon ne da ko jël par ñaar masalan mu nekk nasara ak ségal nasra ak ségal day firi takkaayal jigéen tey firi xew <laughs> bu dee bëdd na ak amar dana firi jàngoro joo xam ne dafa nekk ci nit dana firi saytaane bu dee siifar ak sëgal kooku fekkam na da xoolal ku feebar da wax ne kii ñamu bon la lekk ñamu bon la lekk boo jëloon ñetti doom yi masalan muy rëkkiis ak bëdd na xam nga dañuy jël rëkkiis a waa lii su baree ci gisaane day firi lu tàgga témbe loo xam ne nit ki da koy ba sonn du sotti boo jëloon boo doon xool sëy fi ne kii góotal la mu yenu ab yat ak rëkkiis kii ci gisaane ci sëy mooy boo ko takkee dina la yëkkati mooy ku baax gaaf. Mm-hmm, mm-hmm. xam naa dinañ ci duggaat ci kanam mooy koo xam ne soo ko takkee li wolof du tudd tuddee takk falo mm-hmm, dafa yenu dafa yenu ñeent fi ne bu taxawoon ci ñaar day tudd takk falo kii amar ak ñaari amar buñ seqee siifar kii dalay juñ dalay xamal ne liggéey buñ suul ci moom mi ngi ci moom. fi mu ne fu mu taxawoon ci kër gi yow da nga mën a xam bu ko defee ci biir kër gi danga nga mën a dem ba ne fii lañ ko def wala fii lañ ko def fii ko def loolu lépp looy doom yi moo la koy wan. fii ñaari aamar bu fekkoon ne dañoo seq tariq kii di man dañ wax ne suuf soo xam ne da koy seddale mhm. fii ñaari abyad buñ ñu seqoon tariq wax ne xaalis boo xam ne da koy seddale ndax tariq. Mhm. day xaaj. Mhm. kon nga xam ne gisaane ci masalan amut lu mënta génn ci nit muy almu ramli te amul lu ko ci gën a wóor te lu simple la jarul sax am na nag ñoo xam ne euh, dañ ci rax loo xam ne bokk ci du cosaan li xam ne di koy sampalak ak di ay jatak ak yeneen yoo xam ne dañ ci dañ boole yoo xam ne du cosaanu mhm. tomb suuf yooyu yi ci wàll rek la mhm. ndax li alxuraan wax ne wa ahsayna kulla shay'in adada mbir moo gis ñu ko pek ci adat gisaana lenn dong mu nga ci mën a dugal mu ànd ak moom tam muy adat muy calcul te ci kanam tuuti dinaa la wan fi nga koy dugale masalan boo tëraloon genn gisaane masalan nga xam ne danga nga ko firi gis nga lay wax taaw tariq ñaari tariq ñu seq kii ñu seq gëbër waakaf góor gu taxaw gi da wax ni kii dafa feebar ñaari tarit buñ seqee gabro waakam dañ ciy tawat dañuy mm-hmm. xamal ne kii dafa tawat mm-hmm. ba noppi mu am ñetteelub tarit ak juróomeelub tarit mm-hmm. loolu day tekki tàgge maanaam dalay xamal ne kii lu deful nànk tàgge bi dana dana ko feebar bi dana ko yóbbu dana ko yóbbu te ba tey rëccaatut ci suuf masalan man man ak yeneen nag yeneen yoo xam ne mën nga koo développé ci biir loo xam ne lii rek mën na cee wax lu toll ak une heure mhm. léegi bu ñu ñëwoon ci sooñu gisaane sooñ mooy li nga xam ne mooy fas gisaane ci masalan. li nga xam ne mooy fas gisaane. Mhm. comme sër day am sooñ. Mhm. bu dee sooñ yii ngay jël benn ñaar ñett ñeent juróom masalan juróom juróom benn juróom ñeent fukk ak benn. fukk ak benn dalay wax pàcc pàcc pàcc pàcc mooy jàpp boo xam ne dëgërul. Mm-hmm. bu fekkoon ne fukki soñ la dalay wax ne jàpp bu dëgër. Mm-hmm. bu fakkoon ne juróom-ñeent soñ la dalay wax lonk ñoddi. Mm-hmm. ba ci li ñuy tuddee al alforada day wax ci gisaane. bu ñëwoon ci ki nga xam ne dafa tawat masalan laxyaani bi ñaari segal seq ko kii dalay wax ne bu amoon ñetteelu tariq wala juróom-ñaari tariq dalay wax ne tàgg ba dikk na ci moom. kii gabra waaqa moo yenu rekkiis ak siifal. ki dalee xamal ne waa ji ku jubanti la waaw am na kuñ masa ci nettali rek ko xam ne mas naa koo seetal waaye dama ne ko yow yaa ngi jóge ci njaaloo léegi léegi léegi matul sax une heure de temps. est te ci lii rek ngay xool pour xam nga est-ce que gis nga ñaari tarax yi Cheikh góotal ba tey loolu la kii Samra yanu rek kii ak Amar ki dalee xamal ne jigéen jigéen ju am gaaf la mm-hmm. yooyu yëpp gisaan ne daf koy génn. boo ñëwee ci garab yi nga xam ne boo seetalee nit ki da nga xam feebaram da nga xam noo koy ñaanale ci gisaane da nga xam sax ba garab yi nga xam ne moom nga koy jëfan moom nga ko war a jox. Mhm. pour ay mbiram sotti. masalan boo ñëwoon tariq day firi séng day tekk garabu séng garab gu gudd. Mhm. boo ñëwoon ci rekki sikki day tekki garabu tàndarma. Mhm. boo ñëwoon ci bëdd na dana seex guy gu sëq. dana dana tekk ngeer. boo ñëwoon ci euh, sëgal day te day mën a tekk garab gu lëndëm masalan garab gu guy goo xam ne gu lëndëm nga xam ne daal gisaane boo ko manee nit ki mën nga koo xoolal gàllankooram mën nga xam li nga ko war a defaral <laughs> moo xam ci mbind la mhm. moo xam ci garab la moo xam ci leneen la mhm. kon nag lii ab junj la rek buñ ko indi woon boo xam ne mhm. ñu xam ne gisaane xam-xam bu ñu war a jàng la te kenn waru ko fortaatu. Mhm. xam ne lépp loo ci bëgg mën nga ko cee. Mhm. mën nga ko ciy génne. kenn waru ci làmbatu. déedéet xam-xam kenn du ko làmbatu da nga koy da nga koy jàng. Mhm. kon loolu lañ leen indiloon ci gisaane ci tënk. ngeen nga xam ci ngeen ngeen xam ci maanaam nu muy doxee dëgg dëgg dëgg. macha allah. macha allah Cheikh Abdou Ba leeral yi am na solo trop yaakaar naa ni leeral nga ni mbirum gisaane nekk na lu wér. bëri na ay bunt te tamit mun naa ne xaqiqatan nekk na xam-xam boo xam ne xam-xam bu ama am solo la macha allah yaakaar naa képp ku la dégg xam ne ni que liñ ci wax am na ay leeral am na ay leeral yu am solo également tamit nit ñi nga xam ne koo xam ne bëgg na ci gën a am yaatal yaakaar naa dina jël sa numéro contacté la wala tamit tey jii mu rapproché wu auprès si librairie yi nga xam ne tey jii librairie yi nga xam ne daal ndax daanaka comme ni ma ko waxee ci njëlbeen bëri na ay téere yu bëri loo xam ne taarif nga ko ci di ci jàngale xam naa bu ñu paree loolu sëriñ Abdou Khader bëgg naa tuut ñu ñëw ci mbirum gaaf ndaxte bëri na lool lool luñ koy dégg te ñu bëri xaw nañ ci am ay lënt-lënt tey sëriñ Abdou Khader lan nga ñu mën a wax ci mbirum gaaf ci lu yaatu. waaw wax nga nag loo xam ne lu doy waar la te tamit lu ama am la te nit ñi wute nañ ci ak déggin. waaye mbirum gaaf li ñu ci mën a wax rek yonent bi sallallahu alayhi wa dafa ñëw fekk ko fi am lum ci dindi am loo xam ne saxal na ko ci te li ëpp ci dindi mooy di jàngale alqadar mooy gëm dogal bi waaye nag dogal bi mhm. ndax fi ñëwee ñu ëpp fi nekk maanaam daal ñu ëpp dañ daan topp wàllu gaaf ba gëmatuñ yàlla mhm. waaye yonent bi mu ñëwee nag da leen a dellowaat ci yàlla xamal na mhm. lépp yàlla mhm. ko bind teewul nag mu dàq ko ndax moom ci boppam moo wax ne afatul ayni xaqun afatul lisaani xaqun maanaam làmmiñ am na gaaf bët tamit am na gaaf wolof nag suy wax gaaf gaaf nit ki day am gaaf nit ki ci boppam mën na am gaaf palaas sa kër na am gaaf oto bi nit ki war sax man naa am gaaf da ci fas day am gaaf yooyu yëpp day am gaaf moo tax li yont bi wax ne maa xaaba man istaxaara wala nadima man istachaara mhm. nit ki lépp loo xam ne da ciy dugg rek da caa war a def listixaar wala mu xool ko laata mu cay dugg mhm. su defee du ñaare du ci am lu naqari wala mu diisoo ci mhm. xadis boobu loolu lay tekk ndax dafa bari gàllankoor doomu aadama yoo xam ne du ci teg bëtam mhm. kër mën naa am gaaf mhm. jëmmi nit ki mën na am gaaf sa sox jigéen mën na am gaaf góor tamit mën naa am gaaf oto bi ngay war sax mën naa am gaaf ndax nit ki léeg mu jënd oto xam ne daanaka dootu mën a denc dara lu mu yor rek ci oto lay ci oto ba koy def mën naa am gaaf boo xam ne làmmiñ koy def wala bët sax def ko ci oto bi kon yooyu yëpp daf man di bàyyi xel mag ñi dañuy wax ne su fekkee da ngay sañ ci kër na nga fa def lu tollook sëfu mbaam ci gàllaaj loo xam ne mën naa sëf mbaam ci gàllaaj nga def ko ci sa boo dee sañc ab dëkk na nga fa def lu tollook sëfu gëléem ci gàllaaj maanaam yooyu buñ koy def du par hasard mhm. ndax ñaar loo dugg ak loxoy kese rek ñaar dañ ci génn ak ay ak loxoy kese gaaf nag dafa am ñaar ni la ko mën a tënkale émission bi bañ a gudd lool mhm. ci am loo xam ne rab moo koy def mhm. loolu dañ koy tudde gaaf am ci loo xam ne ci bind nit ki lay doon mhm. nga xam ne gaaf la mu ngi ne ci nit ki nga xam ne dañ koy tojtal su dee rab la dañ koy saafara mu génn ci moom wala boog li muy yàq mu bàyyi ko bu dee gaaf gu nekk ci nit ndax day am nit ñoo xam ne dañuy am làmmiñu bëy làmmiñu bay loolu la wolof di wax kooku ñaare lu mu tudd rek mën naa yàqu. Mhm. xam ne seen gaaf ci bët lay nekk. Mhm. ñaare lu xool rek. Mhm. loolu mën naa yàqu. comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam te yëpp dañ koy tàccal. ne am na ci jigéen ñoo xam ne dañuy yandu ëmbëb sëy am na ci jigéen ñoo xam ne mënuñoo toog fenn. da ngay gis jigéen joo xam ne day am lu mat juróom-ñaari jëkk juróom-ñaari jëkkër juróom-benn jëkkër. te ku baax lay doon ku lewet lay doon. Mhm. fekk boobu dafa am gaaf gu ne ci moom goo xam ne dañ ko war a togtal loolu dañ koy togtal dindi ko xam ne mënut a toog ci sëy loolu day am day am ci jigéen ñoo xam ne sax du ñu seen bu ñu ëmbee rek mu ci gën a bari rab a koy def loolu wolof dana ko tudd tamit gaaf loolu wolof da koy ci gaaf yi ne am na ci góor ñoo xam ne sax ñaare jigéen juñ takk ab diir rek mu faatu loolu gaaf la ci ko góor ki loolu gaaf la ci góor gi gaaf nag mën nga koo xame ci seetal nit ki comme niñ ko jàngale woon léegi ci ram bi mhm. mën nga koo xam tamit ci jëmmi nit ki bu doxee nga xam gaafam mhm. maanaam mag ñi bu njëkkaan boo boo leen présenté soxna nga war koo takk bu doxee rek dañuy dañ lay xamal ne kii boo ko takkee da nga am lii da am lii ndax jigéen ñi da ci am ñoo xam ne boo leen takkee takk falu maanaam boo leen takkee ñu jële la fa nga nekkoon yëkkati la loolu ñu koy gis ci ñoom lay ci jigéen ñi lay nekk am na ñoo xam ne boo lan takkee ñu folli la. wane mhm. newoon ci kaw ci suuf lañ la jëm. Mhm. am na ci ñoo xam boo leen takkee maar day taari doo mhm. jóge ci tawat. mooy takk tëdd. am na ci ñoo xam ne boo leen takkee dañ lay tëñ mooy takk faatu. yooyu yëpp lu ñuy toj lu ñuy la. ci day nekk ci nit ki. ñu toccal ko bokkut ak gaafu rab. gaafu rab day am. ni ci góor ñi am na ci ñoo xam ne kuñ takk tamit kasaaleeku nga faat. ndax noonu. ne bu dee ci góor boo koy toccal kooku ci sàkkar si nga koy toccale. waaw yooyu yëpp dafay am bu ko defee nag euh, bu fekkee koo xam ne gëmu gëmut mbir yooyu waaye koo xam ne xamu ko. maanaam day dem ba sonn lool ci àdduna am dem ba découragé fekk boobu. jàngoro bu yàlla wàcc rek. am na saafara am na saafara. loolu ci gàttal mooy gaax bu ci kër am na ci kër yoo xam ne. boo fa dëkkee yàlla day ubbi sa wërsëg mhm. kooku benn kër ga mën naa am gaaf ca biir mhm. wala boog mu am rab wu ca nekk woo xam ne moo lay yàqal mhm. ndax kër bala nga koo sanc moo xam loo ca war a def bala nga koo jënd sax war nga ko xool wala ngaa kër ngaa xool kër boo ko jëndee ba pare war nga caa def lu koy tojtal loolu man ngi dañ ko daan def am mën naa jóge ci kër gi dem ci kër gale daal di dellu ginnaaw dellu ginnaaw bu méttee métti te doo xam lan la. Mhm. fu ne lay dugg. Mhm. fekk boobu gaaf dafa ne ci kër gi. Mhm. mën naa jóge ci kër gi amu fa dara sañ ci geneen kër yàlla ubbi kër ga ci boppam moo am gaaf gaaf gu baax. wala am rab bu baax. ndax ak rab yi ñoo dëkk. ñoo dëkk. ndax rab bu dee ci kër bu ma lay seetal ci kër mën naa laa jox loo xam ne boo demee bu fekkee dafa am gaaf boo ko suulee ci kër gi boo xëyee da ngay gis rab yi dox ci kaw bu fekkee dafa am rab. gis ngay gis rab mu dox ci kaw te loolu lu yomb lay doon hmm. maanaam liñ liñ bëgg a wax rek mooy gaaf lu am la ci nit moo jur sax cat bu ñuy wax cat loolu lépp ci gaaf la bokk hmm. ndax nit moo lay cat catu làmmiñ moo li mën a wax léegi day am nit ñoo xam ne làmmiñ yu bëy lañ yor hmm. ñooñu dañ leen a war a tojtal am ñu ñoo xam ne seen bët seen bët yi da yàq luñ tud xool mu yàqu am ñoo xam ne luñ wax rek mu yàqu kon dégg nga ci ne doomu aadama ci boppam lu ko mën a gàllankoor dafa bari te du ko xam. Mhm. mën a gàllankoor dafa bari te xam ndax du ko gis moo waral fonk ñaan ak di def ci sa bopp lu lay aar saa yu ne. ak di sangatu wàllu cat saa ne. ñu bari ci nit ñi dañuy yaakaar nag bu loo benn yoon rek. jeex na fekk boobu ñaan ak gàllaaj mën naa toj. Mhm. mu mel ni jàpp. nga jàpp julli ci waxtu wi balaa waxtu wi mu toj. war a dikk sax sax ñaan mag ñi dañuy wax ne mook sàkkete yam sàkket. Mhm. sàkket waaw sàkket waxtu wu ne da koy toppaate ka ràbbat. Mhm. soo ko bàyyi ab diir da ngay gis mu tasaaroo. Mhm. ñaan noonu la mel. bu tàggee da ngay ñaan benn yoon kon loolu ci yi la ko mën a waxal mooy gaaf lu am la ci nit. te tamit luñ mën a saafara la moo xam jigéen gi day ëmb mu yàqu. loolu rab daf koy def. loolu benn mën nga koo xamee ci gént uh-huh. jigéen ni muy gént rek da koy xam uh-huh. xam ne kii am na lu ne ci moom uh-huh. lu ko yàqal lu muy tëdd di ko gis la bu dee jigéen joo xam ne du mën a toog fenn ci ab sëy fu mu toog sëy benn benn weer ñaari weer tas keneen ñëw tas te du moom du xam lan la loolu mën naa nekk gaaf ci moom mën naa nekk rab te loolu sax mën nga koo xam ci gént masalan jigéen joo xam ne day gént di yanu ëmb wala day gént di yanu bagage nga xam ne da yanu bagage bu ko tegee fii bu ko bu ko bu ko yenni ko daat ko yana demaat demaat fale yenni ko ko daat ko yanaat demaat loolu ñaare day tegtale jigéen ju yanu ab ëmbam mooy koo xam ne du toog ci ab sëy ne am na ci jigéen ñoo xam ne boo leen takkee faaw nga téye leen ñu soog a toog ndax seeni tànk dafa woyof loolu lépp day dafa dafa bokk ci gaaf mhm. am jigéen ñoo xam ne fii boo leen takkee ci seen bind rek yow doo wuti dara lépp mhm. da ngay toog mu fek si la mhm. am na ci ñoo xam ne boo leen takkee faaw nga dem jëli. Mhm. li nga yam dem jëli ko. Mhm. boo toogee du ñëw. Mhm. yooyu yëpp dafa am ndax jiglaay day am ci nit. jiglaay day am ci nit ak déggoo. waaw du caagane na ñoom ñàkk wërsëg wala déedéet wërsëg moom ñëpp ko am waaye doomu aadama ci boppam mooy am gàllankoor bu ne ci moom. yoo xam ne ci man na koo bañ a xam. wala boog muy wër di tañax tañax ko rek du xam fan la a dem ñu wax ko lu leer. yooyu yëpp dafay am. Euh, fii bari dañu fi ñëw ñoo xam ne ñi dem hôpital fu ne te bu ñëwee fii fekk boobu ndax li nga xam ne moo moo moo dama leen ko wax dama leen ne jamono bii del boole ñaar suuf su boo feebaree del boole ñaar del dem ci docteur yi del dem ci sëriñ si del boole ñaar yooyu ndax comme yow xamoo wala bo nga dajeeg sëriñ bu xam bu maan du ragal yàlla xamal na ne lii tawati sëriñ la mu saafaraal la ko waaye su dul lool rek mën ngaa sonn lool ndax bu fekkee da dem foo xam ne loo xam ne wàllu doc du du wàllu docteur boo doon dem fii ba France du saafaraw du saafaraw du saafaraw ndax li ñuy tudd tibbu rawxaani dafa am mhm. tibbu rawxaani ak tibbu asri dafa am mhm. tibbu rawxaani mooy loo xam ne bët du ko gis mhm. microscope yi du ko gis kon ne sa biir day métti nga xam ne rab a ko def wala tooke moo ko def. Mhm. boo doon dem fii ba France def scanner duñ gis dara. Mhm. duñ gis dara. Mhm. waaye boo ñëwoon ci ko xam ne xam na ko li muy def xam na ko mu seetal la ne leen la. su la jeexee garab da ngay am jàmm. kon nag ci niñ la ko mën a loolu mooy gaaf. ak i tamit gàllaaj noonu lay mel ci nit ak di ñaanlu ak di sangatu. ndax dëgg la lépp ci dogalam yàlla lay lay lay lay waaye nag di ñaanlu dafa bokk ci dogal ndax yonent bi moo ne te daawu yaa ibadallah boo leen feebaree dee leen faju dafa bokk ci faju dafa bokk ci dogal fara ndax doo tëdd rek sa sa mënoo amul feebar boo xam ne tëraayu koy faj mhm. da ngay dem sàkku garab nga mel ni boo xiifee da ngay dem wuti loo lekk mhm. soo maree da ngay dem wuti loo naan soo bëggee xaalis da ngay jug dem da ngay jug dem liggéey waaw maanaam ñaan tamit noonu la noonu noonu noonu la mel ak faj ci wàllu tibb rawxaani mhm. yaakaar naa loolu ñu la ko mën nañ la ko tënkale noonu la mhm. waaye mën nañ cee wax nag lu gën a yaatu loolu mhm. indi ci ay misaal yu bare bare ak ay xisa yoo xam ne yàlla def na mhm. jaar nañ ci ba jàll macha allah sëriñ Abdou Khader leeral yi am na solo trop yaakaar naa loolu moo nekkoon tontu bi ci wàllu gaaf comme daanaka comme ni ko waxee rek comme olof yaay la muy wax lu duuf si nag lépp xajul ci tin li xam naa ni danañ ko tënk foofu rek ba beneen yoon mais mënuñu la seet si sëriñ bi te duñu waxtaanee tamit actualité tolluwaay réew mi gis nga ne jóge nañ ci mbirum élection locale loolu noonu xew-xew yu si am sëriñ bi ban jàngat nga ci am. waaw jàngat bi day euh, comme ni nga xam na ñun moom lañ koy jàngatee jàngat bu njëkk bi mooy yàlla mayewoon ngóor. donc daf la koy dénk. ñi nga xam ne yaa fol foll nañ leen bu ñu mere kenn nañ njëkk a jàngat ci seen bopp te nañ sant nañ sant nit ñi leen faloon mm-hmm. ndax bari nañu fi nekkoon ñu bàyyi leen fal leen mm-hmm. li nga xam ne moom lañu war a góorowoo ndax bañ leen falee liggéey nañ fi liggéey boo xam ne amal nañ njariñ population bi mm-hmm. ndax nit koo xam ne képp koo xam ne fal nañ la man dama ne kuñ fal ngay kontaan ak di jibile mhm. da nga narta liggéey da nga xamul luy folli kuñ mhm. fal rek folli ko yi dikk mhm. maanaam koo xam ne fal lañ la rek xamal ne folli ko mi ngi ci sawet wet léegi nag balañ laa tax ñu fal la yow góor na góor-góorlu ba liggéey li tax ñu fal la ndax loolu mooy ngóora loolu mooy ngóora ndax euh, ñu bàyyi lu mat ay nit ñu bari Uh-huh. mbooloo mu bari wóolu ne la yow fii yow lañ fi yaakaar ne boo fi boo fi toogee da nga tane fi jugee loolu sas bu rëy la loolu bu rëy la te nit ñi nag léegi dañoo yeewu bëgg soxlaatuñ kuy sàcc seen alal uh-huh. bëgguñu koo xam ne da wane sa bopp uh-huh. bëgg nañ koo xam ne waxtu wuñ la soxlaa gis la wax la waxtu wuñ la soxlaa ci seeni jafe-jafe gis la mhm. waxtu wuñ la wax waxee jafe-jafe yuñ am nga def ci la nga man ñu teg ci seen bët mhm. ndax bu njëkkaan nit ñi di la may temps amul léegi duñ may kenn benn temps mhm. man damay wax ne kuñ boo deful nànk benn mandat rek ngay ñu folli la ñi amatuñ temps boo xam ne dañ lay xaar naan xaar la ma ma ak di la déedéet benn mandat ngay am boo liggéeyee ñu falal la boo liggéeyee ñu folli la parce que nit ñi doon yàkkamte ñu temps te dëkk bi dafa metti te dëkk bi dafa metti léegi nag ñiitu réew mi war na ci def ay jàngat lu gën a yaatu ndax nit ñi ca boppam wax dëgg yàlla dëkk bi ku la ne méttiwut lay wax lu ko neex uh-huh. ndax lépp fépp loo laal lu ne yokk na uh-huh. tey tamit ñëpp koy ñëpp koy dund uh-huh. te ñëpp koy dund te wax dëgg yàlla dund bi fi mu egg war naa war nañ ko wàññi ci wàllu bu ne dimbali nit ñi ndax tamit dañoo sonn moo waral ñu sanctionné leen coonam nit ñi jàngat bu njëkk bi moo waral ñu sanctionné leen ñii ñu fal tamit coonam ni ñi moo tax ñu fal leen kon nag ñi fal na ngeen fexe ba lu ngeen man ci wàññi coonam nit ñi ngeen wàññi ko te bañ a jaawale nag mhm. poosu maire yi ak seen poos mhm. loolu moom bu ngeen koy def léegi te ñu leen fi jëlee mhm. ndax xaalis moom ku ko bëgg da nga war dem wuti entreprise wala nga dem wuti waneen liggéey waaye feeg ñu ngi def ci seen bopp yi ni buñ la falee rek te buñ la falee rek tekki nga kooku doo liggéey xëy loolu ñu ngi koy def suñu bopp yi rek doo liggéeyal askan wi mukk waaw képp koo xam ne yow yaakaar nga ne buñ la falee rek maanaam euh, da ngaa war a tiit am na responsabilité yoo xam ne buñ la ko joxee da ngaa a tiit. tiit nga war a def. waaye waaye waroo waroo wane mbégte. ndax li nit ñi xaar ci yow ndax da nga ko mën a def lépp. ak lan ci def. kon maa ngi leen ñaanal. yàlla dimbali leen bañ am xel mooma. mën a taxawu askan wi luñ man te bañ a jaawal seen poos ak poos yi maire yi. loolu moom maa leen ko ñaan bu baax te njiit réew mi mu gën a geestu askan wi ndax askan wi desalatuñ ko dara. maanaam ba bu ne. jox nañ ko ko moom moo war moo war a fay nit ñi waaye nit ñi waratuñ koo fay. macha allah se Abdou Khader ba leeral yi am na solo trop kaddu yi am na solo trop macha allah dénkaane am na solo trop xam naa ñu ngi ci cappaandoo émission bi waxtu nekk na li nga xam ne tënk na la lool xam naa du ñu def lu dul di la remercier di la jaajëfal xam naa bàyyi la mbokki internet yi nga tàggoog ñoom lan mooy sa mot de la fin lan ngay tàggatoo. lan ngay aska askan waaw li may tàggatoo rek mooy euh, di leen santaat ci opportunité bi ngeen ñu may. nit ñu mën a génn dara ci xam-xam yaakaar nañ ne liñ génn dana am ñu ci jariñu mhm. ak it li ñu wax euh, am nañ ci yaakaar ne luñ xam la te bari na loo xam ne mën nañ ko ci loolu la yàlla dogal ndax wolof njaay lay wax ne xam-xam moom taat bu ko doon wut ala kulli xaalin dana ko yor mhm. ñun buñ tëj woon buñ bañoon buñ tëj woon bañ a wax yàlla dañu ñu teral ñu mën a faj suñu aajo waaye nag li ñu bëgg saa ne bu ñuy wax rek ñu ñuy seetaan am njariñ duñ ci jëlee mhm. waaye duñ toog ne mën nañ lii mën na la mën na laa lool moom taxu ñoo jóg yaakaar ne li ñu wax lépp loo xam ne njariñ la ñu sant ko suñ borom loo xam ne njuumte la ñu ngi koy jéggulu ñëpp dinañ ko jéggulu di wax wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ba beneen yoon ci yeneen jataay